maa ngi fi ci kër mi Mbaye Djilma Djilma ndax njaboot gi sama njaboot lañu waaye nag li yàlla di def yàlla lu ko neex rek ñu def yëf yi ni mu demee nag mooy daal tubarkàlla sant yàlla rek parce que tey comme kenn gaañu wu ci kenn waru ci lu dul matériel bi moo yàqu ak kër gi loolu sant yàlla ndax kër pétal nag du lu kenn xam du gaz du gaz du almet du courant ah, du dara lo xam daal mbiri yàlla la daal ak daal loo xam ni mi ngi te kenn du ko gis bi bi bi ñu demee ba xam ni lii il faut ñu def ci ay débat bi ñu ko defee sax nag la safara si du wàññeeku waaye dal dafa mel ni daal dafa am rab bu dëkkoon ci kër gi loolu mooy mooy li taal kër gi waaw ah, moom moo kër gi sax gi gis nga parce que néegam bi dara génn ci seen pièces yeeg passeport yeeg seen bien yeeg pour suñ doon denc yëpp ci biir lañ ko denc mais lépp dafa tàkk dara génn waaw dara génn bi ñu bi ñu paree nag ah déedéet doon du cuuraay du dara. bi ñu sànni mystique la quoi. waaw mystique la daal mystique la daal boo xam daal bi ñu ci defee daal diibaat bi daal ba woo ñi ba ñëpp xam-xam yi daal ba. ba ñu woo ñi xam euh, bi ñu ñëwee daal alors lañ ñu ko bu mu leer ba pare ni mu doon tàkkee man maa ngi man bi muy tàkk ñëw naa ci kër gi ba mu fay mais da ngay génn toog fenn ñu jékki-jékki ni feneen mi ngi tàkkaat te doo xam lu koy taal kon nag loolu nag daal euh, euh, affaire yu débat débat dal loolu dal mo ci dugg noonu daal la yëf yi demee ñaan nag yàlla yemale ko fi te mu sedd ne ñu di ko wax mbokk yi yëpp lu ci waaye mën ñu def ko ci ndax euh, kër gi moom irréparable hmm. doon na parce que lakk na ba ñor miir yi ak yëpp yàqu